taxaw ci kanam xaadimu rasulillah mooy taxaw ci kanam xéewal bu mag jant ju fenkal àddina yépp alquran joo xam ne nekk na di jëmm ñi gis ca jëmm jooja ca jëfam ca waxam cay santaaneem cay tereem ca yëngatoom ca dalam ci léppam alxuraan juy dox wax jooju sosuma ko jëlewuma ko itam ci samam xel di ko indi dama caa sukkandiku waxu boroom xam-xam yi seen mbind mu fi des ca laa teg sama bët samay gët taxaw di ko nettali gannaaw bu ko sama xol yëgee gannaaw bu ma jàppee ne wax jooju amul benn werante gannaaw bu ma toppee tànk yooya gannaaw bu ma xeeñtoo jëf jooja kon ba ma boolee fa ma sukkandikook la ma yëg ne naa axa ah kay xaadimu rasulillahi ahmadu bamba alquran juy